waral mm-hmm. comme danga ko defloo point mort xam naa fi mu doon jëm man fa laay jëm <laughs> wax nga ko sànq nee nga tout au début que euh, da ngeen di féliciter liggéeyu Y'en parce que fête ngeen euh, seen euh, dix ans d'existence mm. jamono ji nag ñu gis ni que Y'en a marre fi ñu ko doon xaaree fa bëri nag dafa laj am na ci ñoo xam ne retour nañu seen veste yow daan nga tàngal waaye léegi dafa mel ni da ngay xiim di seddal léegi nag Y'en sax dafa mel nii dem nañu ba gars yi dañoo yaa maar de yaa la maar qu'est-ce qui se passe moom nee na ans lañ def. waaw ngeen def mais man dama lay wax ne 1 an. waaw ngeen réussir. neuf ans da ngeen ko laaj <laughs> te boo ma laajee lu tax ma la ko wax la ko moo tax man la askan wi fi mu toll ñun on a marre de Y'en a marre. merci je vous comprends parce que effectivement. yéen a ngi ci mouvance bi. mouvance ba. c'est-à-dire li ñëpp wax. li li ngeen ne li ngeen jàpp ni ñëpp loolu la ñu wax. waaw. xam nga le journaliste lay. xam nga ba léegi. Ah. ba léegi. Hmm. ñi naan Y'en a marre c'est des corrompus amul kenn ku ñu mbës a génn télé wala rajo avec des preuves à l'appui pour ne effectivement lii mooy preuve ne Y'en a marre dañ ko corrompre amul. ci dix ans yëpp te ci dix ans yëpp ñi nga xamante ne ñoo sos Y'en a parce que mu ngi tàmbalee ci kilifa ak caat mhm. ànd ak Fadel Barok Alioune Sané mhm. ñoom la onze lañu am idée bi diggante la onze ak le dix-huit man ma yëg ko Simon yëg ko Jili Baxdaad yëg ko ñu sos mouvement bi xamal ko àdduna mais ñooñu noonu ñuy woowee ak ñoom Sofia Sofiatou Denis Sow ñi ko sos mosu leen dégg ni jàppante nañ xeex nañ xaalis moo leen boole tel tel tel tel hmm. am na nag wax yu jóg. Hmm. liggéey nañu ak Oxfam. ah wala laa bëggoon oui liggéey nañu ak Oxfam. te ah. bi ñuy liggéey ak Oxfam am na moom. ñuy liggéey ak Oxfam. Hmm. dañu woo presse. teg presse conférence de presse. ne ñu ngi liggéey ak Oxfam. jox nañ ñu nangam. ci ay millions yu bari pour ñu amal ben programme bu tudd observatoire de la démocratie et de la bonne gouvernance maanaam ndenkaane fay am saytu pour que ngeen mëna a ndaw ñi ci gox goxaat yi maanaam biir waxinaan dooleel bir biir maatam dooleel len bir podor mhm. dolel len wax ak sa gox wax ak sa gox dox mhm. ak sa gox dox ak sa gox mu nek programme bu am solo bo xamantene dafa don former ndaw ñi ci contrôle citoyen mhm. contrôle citoyen mhm. contrôle citoyen mooy fexe ndaw ñi xam lan mooy le vote du budget mhm. fexe ndaw ñi xam lan mooy bonne gouvernance fexe ndaw ñi xam outils yooyu pour mën contrôler l'action des mairies ñu devons faire def ak wax sa député wax ak député parce que wax ak sa député mooy lan député yi bu njëkk daan nañ ñëw des dig population yi ay autoroute ay ay tali wala ay hôpital alors que député mhm. loolu du rôle Y'en a marre fexe tàggat ndaw ñi pour ñu comprendre question yooyu pour que effectivement mhm. au lieu boo amee problème gin gi neew ne xaaral woo caat wala malal fexe mu am ay leader locaux mhm. mais tey xoolal à Podor Sambatal il est arrêté pourquoi parce que il a dit coronavirus pauvreté corruption l'État les services publics les nga de services agent yi mhm. on a voulu susciter ce leadership local là 2011 mhm. oui on a créé la Yanamar et on a fait l'actualité mhm. on ne fait plus l'actualité oui. Vous en êtes conscient Oui, on, est, on ne fait plus l'actualité. Mais pourquoi Mais parce que, effectivement, mhm. parce que, effectivement, il faut que d'autres mouvements naissent. Mhm. diggante 2012 bataille. tey ñaata mouvement nga dégg. bari na. loolu du ma ne yaanaa maar kese la là. tax ñooñu judd mais beaucoup de, ci li tax ñoñu judd d'accord ci bir Afrique également amna na mouvements mouvement yu judd te yaanaa mar mënul xeex lépp Y'en a donne doon na échoué bu fekkoon moom rek donne fi ne doon na échoué dafa mel rek buñ ci politique au Sénégal ñu naan Pastef ñu naan kii moo fi PDS moo fi nekk les partis classiques aujourd'hui on a Pastef mm-hmm. Mm-hmm. il faut qu'on s'en glorifie c'est quand même important pour ñu am une jeunesse mm-hmm. dans dans le dispositif des mouvements citoyens ñu am d'autres voies yi nga xamante ne on a frappe dégage frappe France dégage suñu différence xëy na ak frappe mhm. mooy am na fu ñu bokk ci politique il soutient Sonko mhm. Guy Marius c'est un très bon citoyen mhm. qui lutte lu am mu ngi ci mais am na parti politique bu mu bokk bu mu bokkal coalition ñun on ne se réclame d'aucune idéologie politique dañu mm. marqué suñu équidistance à parti politique yooyu mm. léegi lolo, ci diggante bi li Y'en a def ak a ay ndaw yu a taxaw ci combat en termes de démocratie Fadel a dit pendant nangami at mm-hmm. taxaw new ñu voter, ñu Alioune Alioune Sané tey moo koy jiite mm-hmm. Alioune Sané bu dawalee ñu woote waat mm-hmm. keneen jiite waat ko mm-hmm. tey ñu bëri yi doon gis ci yaanaamaar ñuy toog di wax muy malal di caat di keneen ak di malal ak ñeneen na ñoom saaliwu ñoom saaliwu bu Cees ñooy wax ñoom euh, ñoom Abdou Khafour euh, c'est l' il est le coordonnateur de l'esprit Yaanamar de Diourbel il est dans le noyau dur de Yaanamar tey ñooñu ñooy wax parce que aussi il faut que nit ñi di mën di déléguer yeneen ni ndaw di leen jox sañ-sañ. do cest man problème sama problème de. xam nga xam nga cest à convaincre ma ma en 2011. mais xoolal mais c'est autre chose. fay am waaw. taf taf ngeen jëlee fi Abdoulaye Wade. waaw ah, il faut mais dañu constaté que. mais non yéen cest a a éveillé. li indi loolu. bi Macky Sall faloog léegi. Macky daf leen dominer yëpp. maanaam yéen lu ngeen taxaw Macky def ko ngeen kaas Macky day jàllale. mais kii bëri doole. c'est-à-dire dafa ñëw wan leen ne leen leen ci man dara. c'est-à-dire lu ko neex lay teg. mais loolu xam nga ça veut dire quoi. voilà c'est loolu moom la jaaxal quoi. ça veut dire tout passe et puis tout passe waaw tout passe. mais mais loolu xam. voilà. ay <laughs> ah, yow xanaa noppi woo woon. <laughs> yow xanaa noppi woo woon nii loola defoon. damay waxaat <laughs> da ngay wax ah. yow waxuma la toogal mu ne mu. mosu ñoo am kër gi mu noppi loo mama damay ragal gat bi ñu amati dina ne mama maa ngi ooy mbaat xam nga en fait mënal am baaxul xam nga xam nga d'abord dafa am benn affaire bu pour régler problème mu moom li muy wax ah. mati bi mu yegsee ci pouvoir bi ba commencé dawal mm. honnêtement il nous a appelé mm. ñu toog mu ne ñu ndax mu ne ñu bu leen ragal a gouverner. Mhm. bu leen a ragal ànd ak man. Mhm. ñu ne ko déedéet bugguñu benn poste. Mhm. bugguñu conseiller bugguñu directeur bugguñu dara mu ne lan ngeen bëgg ñu ne ko dañu bëgg di dajeek yow. tous les six mois tous les trois mois. benn yoon. pour wax la tolluwaayu dëkk bi. nga mën a jubbanti. mu ne ñu waaw bu ñuy am conflit ak moom. loolu mooy le premier malentendu bi ñu njëkk a am ak Macky ak moom ok sequñu xaalis man bu ma la waxee personnellement li ma bokk ak Macky mhm. dina la jaaxal sama maam Macky gasama mhm. ci sama tante Néné Galle Gassama mhm. sama maam Macky Gassama lañ ko tuddee moom ok maire Fatick sama mag Mamadou Talla ministre de l' éducation nationale moo may Macky jabar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 ñoom ak Macky ñu ànd liggéey. Mhm. donc rapport bi ñu am d'abord li ñu bokk. ci mhm. wàllu famille. Mhm. dafa sori trop. ok moom boo ko waxoon boo demoon si Macky tey. il te dira musuma am rakk bu dëgëree bopp ni malal. man ragaluma suba dem toog kër Macky. Mm-hmm. dugg kër Macky wala aw ma problème mu dugg ministère wala dugg kër Macky parce que loolu il faut que nit ñi dindi ko ci bopp nit ñi ku dugg ministère tu es un corrompu mm-hmm. ku toog ak président tu es un corrompu mm-hmm. loolu il faut que ñu dindi ko ci bopp